pose poser question délégué général wala délégué général adjoint wala madame Lo nous répondre leen. Euh, maa ngi nuyu Pape Massala FG Tour je dois d'abord préciser que voyagiste privé là indépendant beaucoup de gens regroupement. Ce que Je veux souligner délégué moi, nous les indépendants nous avons un problème ak euh, communication bu délégation parce qu'en général délégation on vais mu euh, les têtes de regroupement te ñun beaucoup ci regroupement donc en général c'est une communication dañ est forte. C'est ñi. première question c'est relatif à au quota justement euh, quota yi buñ ci pour nous organiser une opération en Arabie Saoudite de baax lool keroog wax nga ne le premier mars incha allah dinañ fas yéene ubbi le bureau mais quota yi buñ ci mënee jot en janvier dinañu arranger trop. deuxième euh, question mooy euh, à propos des packages keroog waxoon nañ ko boobu ba tey déggaatuñu ci dara suñu suggestion mooy que package yi ñu bañ leen a fixer ci benn niveau mais ñu def une fourchette boo xam ne dañ naan de tel à tel pour le standard de tel à temps pour le confort ñeneen ñi wax nga ne doo leen donc du ma leen Et benen bi moy di la wax ne ay changement yo indi ci pèlerinage bi ñu ngi lay encourager di la wax pour nga garder le cap parce que da nga am mission ak objectif yi ñu la fixé. man de sama question benn question rek la damay laaj ndax ñi ci année yi passé depuis 2011 ñu nekk missionnaire Nous ñooñu am nañu droit ñu jëlaat leen wala lu mel ñi ngi Sénégal di représentant ministère des affaires étrangères mbégte gi ñu am ci le ministre tutelle di vision bi nga xamni le président de la république El am pour Admaka, pour dire l'islam am pour la délégation générale au pèlerinage ba ko ko le délégué général Aziz Kébé am ci bir ba anam yi rafet yi nga xamni mok na yi ak estafam délégation bi ñun voyage ici privé ay la yéwén dañ ci sant yàlla julli ci xayri xalqilaahi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi gërëm yàlla ci may gi mu ñu may ñu toog fii di waxtaan ci sunu biir luy defar sunu àdduna di defar sunu àllaaxir ndaxte jaamu yàlla mooy defar àdduna mooy defar àllaaxir di gërëm. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu ci seen tur ci seen sant ci seen daraja ci seen i di leen nuyu ci nuyoowu wa rahmatullah di wax ci ministre bi son excellence monsieur Amadou ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur

C'est une activité religieuse à incidence financière et diplomatique. ak la la la d'abord dine la joo xam ne koppar mën ne caa am na la joo xam ne dafay yóbbaale Sénégal kibiti biti yàlla na rafet loolu moom moo tax mu nekk activité bu importante activité la boo xam ne yi tamit njariñ yi ciy laxasoo les intérêts qui s'y croisent dafa bari ndax boo génnee l'intérêt spirituel dundal sa rox activité la boo xam ne dafay boole économie familiale

privé bi activité économique ou privé bi ak def état les deniers publics la délégation est une administration ak service yamu lamb ministère de l'économie euh, de des affaires étrangères service yooyu agent les lèvres de doxal ce sont les derniers publics missionnaires ils sont encadrés. médecins ils sont encadrés. c'est les derniers publics qui ont di donc vous faites que partenariat public privé exemple de croisement en tout cas entre activité privée et activité publique

mu bañ activité publique L'Olu mom lui l'i, firi li la privatisation le Hajj ne peut pas être privatisé mais le transport des pèlerins le convoyage des pèlerins l'Olu, ça peut être privatisé et aujourd'hui dañ ko privatisé parce que 90 des pèlerins privé yi mais privatisation vous aussi nous n'est qu'une privatisation sauvage fait n'est qu'une privatisation encadrée et régulée et il faut un modèle de privatisation est-ce que privatisation moi, le nombre de pèlerins sénégalais distribués entre les différents voyagistes mu est-ce qu'il faut un modèle de privatisation buy tax quota boobu boo ko distribuer ba pare des relations d'affaires entre ñi nga xam de ñoo privatisation bi ak ñiy indi pèlerin bi di ko quel est le rapport de régulation entre qui nous jox mu yóbbu sénégalais et ak ki nga xam ne moom yori service public bi te une concession ban rapport de régulation lay ak nous faire concession de services publics. lan donne doon le consommateur qui ci qui ci contrôler ak ci c'est ça qui doit être modélisé Si nous ko modéliser ba nous sotti nga la privatisation à 100 du cent di sot di ce que nous devons faire ñi nga xam ne acteurs yi di les voyagistes privés à travers les groupements ren ci la ñu war a finaliser bu ko yàlla soobee modernisation boobu la incha allah privé yi dañu am cër bu rëy ci activité wu pèlerinage bi cër boobu ñu am moo tax délégation wutal leen ci biir ni muy doxale ay kuréel yu mu leen di saytoo ngir seeni yëf di jag te la ca nekk lu jagadi ñu bañ koo ébruité ñu bañ koo biral ci biti muy indi ay nit ñoo xam ne dañuy tilimal seen der alors que lu ñu wane a régler la ci biir cër bi leen délégation jox moo tax comité consultatif bi am moo tax comité de conciliation boobu lay am vous portez presse tout l'âme, vous portez plainte tout am ci cadre boobu aussi ci la nous mettre en place ci réunion bi nous mujjee le 21 novembre à l'Institut islamique de Dakar a eu courir le ramené ñooy liggéey qui finalisation ou modélisation bi homologation bi comité moom moo les outils de gestion des groupements comité moo propose proposez le cahier de charge de l'évaluation les TDR plutôt les, les, termes de référence de l'évaluation du cahier de charge comité moo propose proposez